wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara ونجني وخله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفاس حدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما faabla tawbata wastislaama am na benn sànce boo xamante ni bi Touba ca kanam démarré na ko muy liggéey bu am solo suñu Muntaxal Bachir yàlla na fi yàgg loolu te wér te ko ci seen loxo ñu di ko déroulé euh, ci liggéey bu bu am solo vraiment di ci sant bu baax a baax a baax mais ba tey mu am ay problème yoo xam dafa des fii ci yoon daaru mu mel ne suma juumul azerut am na benn chantier bu ñu fi démarré woon euh, ay 4 mois ci ginnaaw fakk foofu yëpp muy 30 mètres bi fakk nañ yëpp dégagé nañ ko dèjà léegi yoonu ndox la fii ak màggal Touba ku ne xam na ne Touba day recevoir ay gan ñu bare bare bari kër gu nekk dina recevoir gan ñu bari léegi ñu ngi am benn taxaw seetlu ak benn laaj bu ñuy liggéey boobu lan moo ko baare ñu ngi doon dégg sunu frère Cheikh Amar def ci benn challenge boo xam ne lancé woon na ko ci ba léegi amuñ réponse bi ndax ñi dëkk fii Touba yoon Daaru Rahman ñoom dañu bokkul ci dëkk bi wala war nañ leen wax parce que tamit jël benn yoon lu mat 4 mois parce que boo xoolee li nga xam ne Touba ci kanam réalisé na ko ci chantier bi nga xam ne mooy opération defar yoon yi matagul un mois matagul un mois te soo xoolee mbedd yu bëri tàllal nañ ko mais lii plus de 4 mois def na ko te amuñ sax latrik boo xam ni sotti nañ ko dañ ko dégager bàyyi noonu alors que léegi mu nekk yoonu ndox boo xamante ne bii dafa plus que ci li fi nekkoon loo xamante ne bii yoonu ndox la woon mais dañ ko dolliwaat. parce que foo xam ne yoonu ndox dafa daan jaar nga ñëw dressé ko fàkk ko ba mu xóot ndox dafay gën a dollee ko ak màggal gi te ku ne xam ne yoon bi ni mu demee ñi bàyyi ko hôpital Kër Ñang jëm hôpital Ndamatou ci 30 mètres la ñuy jaar ñeneen ñi nga xam tamit euh, tali bi day xat ci ñoom trop yoon bi lañ daan jaar mais buñ demee tey ji ba mu demee nii war nañu wax parce que tamit ñi dekkee Touba yoon daa raxmaan ak li ko wër sonn nañ trop vraiment ñu ngi sant bu baax a baax nag Touba ca kanam vraiment ndaxte day vraiment ñoom fàttewuñ waa yoon daaw raxmaan ni ma ko waxee woon ci euh, sama interview bi passé ci laa koy waxee waat parce que boo dikkee ci F4 bi nga xam ne moo nekk yoon daaw raxmaan pompe forage bi fi nekkoon paan na ba ñu bare bari seen ndox demeetul nam daan doxe ñu indi leen benn pompe forage montel leen ko ñu indiwaat fi ay lampadaires yoo xam ni dafa méngoo ak jamono ji monté ko ñu ne déet na waay ñu indiwaat ci poste de sant bii nga xam ne mi ngi suñu ginnaaw tout près équipé ko ak benn matériel boo xamante ne bii bu dëppoo ak jamono la. kon gàcce ngalaama Touba ca kanam te ñu dikkaat ak benn chantier boo xamante ni opération defar yoon yi la ci la ñu taxaw ni di wax ak yéen lii nii bi ñu ko fi defee léegi matagul un mois te nekkul fii donc parce que boo demee si xaw ga mu ngi en chantier nga dem kër sëñ ñaan la même chose ak yeneen ak yeneen wasarama fi la di turan wa sama min zahirin wa batinin istatama ya latifu ya karimu ya jalil hamil jami'ana bil urfikal وكن لنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وسلام وتخرنا بفعل ما مبتاه والتكفنا في ما أبختا ولا تكن مبتليا منها هرا بما ليس يتيح يا سمان وأبلنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه سليم وجاع من ونيت في عبر ما مثله ولم نجيد محمد الأفضل خلق الله بلا تردد ولا استباع هل يصلي أبدا غير الصلاة بها نرافق الخيار والصغار وأبلنا أقصى الذي آتانا وترك ما فيه ما نعانى حتى يكون كلنا في الركات مقتديا بسنة وسكنات وناجنا بجاي من دعوى ولتكفنا كسبا ولهوا ولتكفنا عوام ما لا يغني بك ودابا اخلنا يا مغني يا الله مغفره من سنوب ياس مولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمد نسيب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل حين كل عين